salam salam sama gars sama xarit ba bàyyi ci jamm tey nag dama bëggoon daal ñu waxtaane leen ñoo xam ne dama xëy suba dal sama telephone gis ci Facebook bi YouTube bi def ay kër rose ñu di jox seen jabar yi ay bouquet fleurs seen jabar yi di leen jox ay cadeau ma laajte lii pour lan la ñu ne parce que tay bisu Saint Valentin la ma ni laajte lan mooy Saint Valentin ñu ni ma Saint Valentin nag bis la boo xamante ni ñu ngi ko jekkee ñaar ñu bëggante ma ne ah, man nag am na loo xam ne ànduma ci ndax su fekkee ni dañu jël jouru mbëggeel war ko feete di ko feete ci benn pan muy lan muy le 14 février pour man chaque jour ñaar ñi bëggante dañoo war a feetu chaque jour feet la ci ñoom chaque jour mbégte la ci ñoom te bu leen fàtte nag ba xam ngeen ni mbëggeel ak ni mu neexee mooy mbégte ndax kat mbëggeel du dem bàyyi mbégte ñoom ñaar ñooy ànd ba tax na maa ngi leen di juñaat yéen sama bokki jigéen ku ci am koy bëgganteel bul bàyyi ba 14 février nga ne dangay lal say darab sànni say bukke di xeeñal sa néeg déedéet dama ne jigen bu baax te bëgg borom këram da koy dund saa su ne jëkkëram saa su wàccee war naa fekk fépp set fépp xeñ lu neex te lu weex rek nag di tàkk lii da laa wax seen xarit seen àndandoo maître may buna ñëwoon nag di waxtaan ak yéen ci li ñuy wax naan Saint Valentin ok ah sama gaay yi di leen ñaan nag ngeen di abonné di aimé di partage ndax ñun yéen lañ fi nekkal bu leen bëggee yeneen ak yeneen tamit ñu demal leen ci wasalaam